أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi ànd ak yéen ci sunu téere bii di Buluugh al Maraam ñu nekkoon ci buntu al aaniya wala bayaanu najaasa wa tahaaratiha tey ñi jël ñaareelu hadis ci bunt bi hadis bi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne lamma kaana yowmu xaybar amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aba talxata فنادى إن الله ورسوله ينحني ينحنيانكم عن لهوم الحمور الأحلية إنها رجس متفق عليه هناك حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه hadis bi dafa am xew-xew bu xewoon mu ne anas nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na lamma kaana yowmu xaybar keroog ba nga xamante ne ci bésu xaybar xaybar xam ngeen ne dëkk la ña fa dëkkoon ay ay yahud lañu yahud bani nadir ñoo fa dëkkoon waaye bis boobu lan la fa yonent bi uti woon ba wax fa hadis bi mooy dafa doon xeetu jàng ñoom xare la woon mi ngi amoon ci weer wi nu nekk muy weeru muharram ci juróom-ñaareelu fan ba ci juróom-ñaareelu atu gàddaay ga astaghfirullah ci juróom-ñaareelu atu gàddaay ga ci weeru muharram la amoon saba hijriya mi nga amoon ci juróom-ñaareelu at ci gàddaayu yonent bi alayhi salaatu wasalaam tolloog 628 milaadiya juddub Isa ci juróom-benn téeméeri at ak ñaar fukki at ak juróom-ñett ci juddub Isa xare bi mi nga amoon ci place boobu tudd Xaybar résultat bu ñu ko jëlee mooy jullit ñi ñoo gañe ñan ñoo ko doon xeex mooy jullit ñi ak yahud yi yi jiite woon jullit ñi ñaari nit la muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ali ibnu abi talib yi jiite woon yahud yi ñaar lañ alxaaris ibnu abi zeynab ak murhib ibnu abi zeynab lan moo waraloon xeex bi sabab yi mooy yahudi ñoo fecci woon kóllëre contrat bu ñu signante woon ak yonentu alayhi salaatu wasalaam ci maarika fu xandaq xam ngeen yonent bi mu ñëwee Medine dafa dëkk ak yahudi yi waaye dañoo signé pacte du ñu xeex waaye du ñu dimbali kuy xeex ak ñun du ngeen xeex ak man du ma xeex ak yéen su ngeen gisee ku ma ku bëgg a xeex ak man du ngeen ko dimbali man tam ba ma bëggee ku leen bëgg xeex ak yéen du ma ko dimbali ñu signé loolu ñoom nag ñu daal di génn ci loolu dem ànd ak ahzab ca xaswatu xandaq di xeex yonent bi yonent bi nag daal leen di mbugale ba nga xandak jeexee yonent mbugale leen nag mooy génne leen Médine ña fa nekkoon mooy banu Quraysata ci waa Médine ña dëkkoon Médine yonent bi génne leen bi leen yent bi génnee lan lañ def ñu dem fekk waa banu nadir comme ñooñu ay yahud lañ seeni mbokk lañ ñu dëkk fa ba pare nag def dëkk ba stratégie de guerre xeex yonent bi mu jigi banditisme yëpp foofu lay déparé di fekk yonent bi alayhi salaatu salaam Médine ak jullit yonent bi nag daal di takk ci weeru muharram atum juróom-ñaareel ca gàddaay ga yonent bi indil leen armée boo xam ne alfu wa sitta min mujahid junni nit ak juróom benn téeméeri soldaaru islam la yonent bi mobilisé keroog dox diggante Médine ak Xaybar ñetti fan waaw waaw dañ ko dox ñetti fan yonent bi di dox ndax nit ñi dina ma jaaxal tey jullit yi nañ mooy doole ñu ne non lii dafa métti non lii te ñooñu naan dafa métti ay oto lañ dugg ak ay kaar ak ay avion lañ dugg ñii dafa métti loolu yéen di doon dox ñetti fan diggante Xaybar ak Médine xam nga ban waxtu la fa yegg guddi guddi la fa yegg encercler dëkk mu ngi fekk ñu ngi ko def tata boo xam ne kenn mënu ci dërëm kenn mënu ko dindi waaye xam ngeen jullit ñi moom loolu néew na ci ñoom mooy yàlla bu waxee ak yonentam rek ñoom seen yoon nekku ci ndeysaan jullit ñu encerclé leen ay fan ay weer mënuñu leen dara loolu li nga xam ne temps baa ngi passé ci la wax waxam bu rëy la suba bu ñu xëyee ki ñu yàlla di dimbali ci loxoom ñu ubbi dëkk bi day bëgg yàlla ya- yàlla bëgg bu mu bëgg yonent yàlla bi yonent yàlla bëgg as-siddiq Abu Bakr nee na bëgguma ndombataan bu dul keroog nee na keroog première sàppe laa nekk ci jàkk ji jege yonent bi trop yonent bi jiite suba yi jàkkaarloog mbooloo mi di xool sàppe yi ne sax ndey joor la tàmbalee di xool di romb nit ñi di xool di romb nit ñi Abu Bakar nee na yonent bi ñëw bu ci man daa di xool samay bët ak bëtam jàkkaarloo mu ne yonent bi romb ma mu ne ma dëng lu topp ko ci la yonent bi dem dellu suuf ma xam ne du man Omar nee na ma espéré comme romb nañu Aboubacar ma xam ne man la yonent bi egsi ci Omar daal di koy romb ndeysaan mu dëng yonent bi jeexal première sàkku te ponkal yaa ngi ko toog kàngami sahaaba yi mag yi woowu ci kenn ah gars yi rek doy na waar mu dem deuxième sàppe di xool bët yi di xool di xool ba deuxième sàppe jeex mu dem troisième ba jàkka ji jeex mu ne ana ali gaa yi ne ko bët yee métti julli siwul ndax du gis mu yónni bilaal na ko jëli bi mu ñëwee yonent bi daal di tànq ndox daal di ciy ñaan jox ko mu sël mu bët yi wér yonent bi daal di yëkkati jaas ji jox ne ko ci kàttanu yàlla yow la ñu yàlla di dimbalee te yow yaa ngi ubbi dëkk bi borom xam-xam yi siira nee nañ imaam ali bi mu sombe bi mu songee tata bi bunt bi liñ ko ubbee kubéer gi bi mu ko yëkkateeg loxoom di ko baaree daf ko baar ak dafa sukaay bi xeex bi jeexee bi mu ko tegee téeméeri góor ñoo ko yëkkati te moom benn loxo la ko téye mu ne xeex bi bi mu déparé am na fa benn waay bu ci ñi jiite xeex bi la bokk parce que waxoon naa leen sànq turam mooy murdim ma ngay woy naan qad alimat xaybaru innil murhibu saaki silaahi batalun mujarradu isa alxurubu aqbalat kalbabu wa ahjamat fi sawlatil maghlabi ma nga naan qad alimat xaybaru inni murhib waa xaybar xam nañ kan mooy murhib waaye yéen jullit ñi yow xamu leen kuy murhib waaye dëkk bi ma dëkk tund wii di xaywaan ñoom xam nañ kan mooy murhi mu ne saaki sila may borom jaasi ju ñoom battalul mu jarra jàmbaar ju kenn dul nataable ay ñeme naag ñemew loolu kenn waxatu ko loolu passé nañ ko ndax bu dee dee rek man maa ko fi gën a ñeme mu ne kañ laa ñeme dee bu safara si tàkkee bu xeex bi tàkkee ba guerre bi tàng bopp yi tàgg tànk yi naaw mu ne boobu la ñuy xam may kan tàgg na boppam daal ba sonn al muhim bi mu paree ndeysaan kenn ci ñu jiite woon xeex bi nga xam ne moo nekkoon ginnaaw yonent bi ndax xeex bi ñaara ko jiite woon yonent bi ak Ali kenn ci waa na ansaar sax bëggoon naa jóg tontu yonent bi ne ko déedéet Ali daal di jóg ne ko ana allazi sammat ni ummi haydara kalaysin kalaysi gaabaat shadidul qaswa ne xaw ma lan la de xëy na yaay murhib waaye man dey sama yaay moo ma tuddee Haydara ana allazi sammat ni ummi Haydara baat bi ngeen di dégg ñu naan siri bi ñoo ko sant Haydara fii la jóge yaayu Ali moo ko tuddee woon Ali léegi ci nit ñu ëppal ñi sax dañ naan Ali bi muy judd yaa am na bare moom rooti ci teen bi mu demee root ndox ba yenu rek benn gaynde ni tël waaye xam nga loolu ëppal la ñu ne Ali daal di lem gaynde gi daal di koy rey xam nga loolu noonu la ndax ëppal bi ñu ko wax l'essentiel que yaayam moo ko tuddee gaynde gaynde goo xam ne ci xuntu la dëkk ci àll bu lëndëm gaynde goo xam ne ay bëtam rek su la xoolee rek nga dee ndax bëri kawar bu bopp bi bëri kawar ndax kawar gi day buubu ci suuf nee na sama yaay moo ma tuddee gaynde googu gaynde googu mu ngi tudd Haydara moo tax mu nekk laysi rabaat mu ngi mel ne laysi mooy gaynde mu tax nabbi day wax isa raayta yanubal laysi baarizatan fala tazunnanna anna laysa yabtasim mu ne boo gisee gaynde nga am ne nii gaynde bu nga am ne looy gis ci gémmiñ ay sell ñaar yu ne nii ak ñaar yu ne nii mu ne nga gis gaynde nga am sell yi ne karaaj nga naan gaynde gaa ngi reetaan de gaynde gi de day ree daa kontaan mu ne dafaa dof gaynde reetaanul de waaye mu ne boo gisee gaynde nga am ba nga gis bëñ yi weer lu mox bu gaynde di ak kontaan day reetaan gaynde musul ree mu ne sadidul qaswa gaynde koo xam ne ak songoom song gi baaxul mu ne man lañ ko tuddee fekkee da ngay jaay njàmbaar man may gaynde koo allahu akbar moo tax bi xeex bi déparé ñoom ñaar lañ njëkk def loolu xale yi naan ruumal ruumal xam ngeen ruumal ëffal leen nañ leen ëffal gars yi daal di def benn cercle yéen ñaar ngeen nekk ci digg bi nga dégg gars yi naan la ëffal bët bi booy dag booy booy kii quoi booy dikkiin waaye ñu yàgg a xeex ëffal bët bi nga gis waa ji bu dee naan te day tànk ko pàcc rek na tëf bët bi bu dee am dox la nga dégg mu naan ndeysaan mu ne loolu benn tënk bu ndaw la woon rek ci xas boobu Xaybar xadis xadis yi dëgg-dëgg moo ñu tax a jóg mu ne lamma kaana ba mu nekkee yow ma xaybar bi su xaybar amara digal na rasulullahi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dal na ko yàlla dolli xéewal te musuk aba talha saabam tudd aba talha yonent bi digal ko ne ko fanaadaa mu woote su wootee lan lay wax mu ne inna allaha naka yàlla wa rasulahu ak yenentam yan xayaa yan xayaanikum yan xayaanikum mu ngi leen di tere al luhumul xumuur al ahaliya mu ngi leen di tere yàpp mbaamu yimiin yàpp mbaam yimiin mooy mbaamu kër mbaamu kër su xaybar kon na yeneen bi tere ñaari yooyu mais hadis bi bind benn bi la indi mais am na beneen riwaaya boo xam ne dafa tere sëy yóbbal ak lekk yàpp mbaamu kër bisu xaybar lañ ko araamal inna allaha naka yàlla wa rasulahu ak yeneentam yanha yaalikum yàllaa kub yonentam ñu ngi leen di tere an luhuumi ci ngeen lekk yàpp al humuri mbaam al ahaliya yi nekk ci kër yi mbaam bu nekk ci kër kenn du ko lekk dafa araam texte yaa ngi noonu loolu mooy nas mi léegi buñ ñëwee ci atte yi waaw na kay xam nga dëgg mu ne innaa naka moom mbaam luy ci suuf sobe la gis ngeen innaa naka moom mbaam riju sun sobe la moo tax kon kenn du ko lekk sobe kenn du ko lekk lan mooy sobe mooy loo xam ne soo jàppee ba pare bu la laalee foog nga raxas ko wala bu fekkee yaa ko def moom sa jàpp day toj bu dee dana bu dee dangaa sangu woon janaaba nga génne war sobe nooy def sanguwaat bu dee dangaa jàppoon sobe génn ci yow da ngay bu fekkee sobe bi génnul ci yow da nga koo tax da nga koy raxasi ji kon sobe mooy loo xam ne moom kenn du ko jege ku bëgg a jaamu yàlla doo ko laal mu ne li ci njëkk mooy najasatu umuuril ahaliya sobe bi nga xam ne sobewu na ko mbaamu kër fii lahmiha yàpp bi sobe la wa damuha ya deret ji sobe la wa bawluha sob so saw bi sobe la wa warasiha nefere bi sobe la mbaamu kër yii bu mu la ci laal da nga koy raxasi ndax sobe la baat bi nga xam ne moom la wax ne al ahaliya mu ne mu annasul ahali la waaw baat bi jigéen la mu ne nisba ila al ahl diddul wuxuush wal ahali al alif min al xaywanat baat bi boo koy firi mooy contraire la rab yi nga xam ne dañuy fàddaate baat bi contraire kon rab bi moom dafa bokk ci rab yi nga xam ne dañuy miinaate al alif boo leen woowee dañuy ñëw boo leen waree ñu dox ak yow ndànk mën nga leen a raay mën nga leen a mën nga leen a mën nga leen a womma xale bu ndaw sax mën nga leen dawal ndax dafa bokk ci rab yi miine kon li ci njëkk ci àtte hadis yi ñu yëg ne mbaam ah sobe la lan mooy sobe non mbaam mbaam ci jëmm lan mooy sobe ci moom yàpp bi mooy sobe deret bi sobe la saw mi sobe la nefere bi sobe la lan mooy nefere mooy li muy génne dem àll bu sobe la mooy benn ñaareel mooy tahrim aklu luhumiha wa shurbi labaniha limaza li annaha rijis wa rijsu huwa alqasar an najas mbaam sobe la kon araam nañu lekk yàppam dafa araam araam nañu naan soowam lu tax ndax sobe la te sobe moom dañ ko war a moytandiku loolu mooy ñaareelu àtte mbaam lekk yàppam def araam naan soowam araam na fa innaha rijis xoolal ñi naan boo amee doom bëgg mu nekk mbaam wala nga am jaam bu góor nga bëgg mu dëgër da koy naanal soowu mbaam xoolal lool rek am na ñu koy def waaw dañ lay tàpp ba pare dañ lay naanal soowu mbaam pour nga am doole pour ngay liggéey ku dégg ci amul arrêt xoolal lool rek dana doomu aadama bon na luñ ne araam na nga dem di ko naanal bindeefu yàlla pour sa intérêt yow ñetteel mu ne amma urufuha wa luaabuha wa badanuha fa fihi xilaaf sa yaati insha allah mu ne bu dee siddit bi wala puuritu gémmiñ gi wa luaabiha ak yuut yi wa badanuha ak yaram bi fa fihi xilaaf wuute def ci am ñi ne set na ñi ne sobe la ah day na waar de ah loo xam ne yàppam deretam sobe la ah ñu ne la yuutam ak der bi dañ cee wuute ñii ne du sobe ñeenteel taqyiiduhu bil xumur al ahliya dalilun ala taharati wa ihabati al xumur al wahshiya maanaa yonent bi tënk tënk bi mu tënk xadis bi daan ne mbaamu kër araam naa lekk lu muy wane am na mbaam boo xam ne du mbaamu kër waaye mbaam boobu mbaamu àll la dagan naa lekk lu tax ndax yonent bi dafa tënk xadis bi daf ko yeew ci mbaamu mbaamu kër kon mbaamu àll dagan naa lekk ndax yonent bi dafa tënk xadis bi umuur al ahliya moo tax mu ne kon mbaam boobu nga xam ne mooy mbaamu àll annaha saydu tahir xalaal rëbb bu dagan la bu laab la mënees na koo lekk kon ñaari mbaamaam daa mbaam goo xam ne mu ngi fan ci àll bi am mbaam boo xam ne mu ngi ci mbaam àll lu muy mel ah voilà gis ngeen kon moom mooy mbaam bi daga na lekk beneen bi nga xam ne moom moo nekk fii rek ñu koy def saret boobu daganu la lekk boobu yàmpam sobe la deretam sobe la ay nefereem sobe la waaye yuut yi ak purit bi génn ci gémmiñ gi ak yaram bi ci kaw boobu lan la foofu wuute def ci am juróomeel mooy at taalil bi annaha rijis dalilun ala anna kullu aynin najas fa hiya muharrama lima fiha min almudar alsixiya wa li annahu xabiis mustaqzar mbokk yi mu ne illa gi nga xam ne moo tax ñu ne mbaam sobe la bi annaha rijis nee na loolu dalil day wone ala anna kullu aynin najas fa hiya muharrama bépp jëmm bu ñu naan sobe la loolu dafa araam sàngara bi ñu nee sobe la bu ko tere dafa araam waaw voilà léeg-léeg yàlla mu ne innamal musrikuuna najas bokkaalekat yi ay sobe lañ te ñoom it araam nañ moo tax yàlla mu ne ci quraan musrik bi dugg àjjana lu tax wa man yushrik billah innahu man yushrik billah gis nga faqad xarama allah alayhi janna yàlla aramal na ci mu ajana sobe baa nga ba pare bokkaalekat yi li tax yàlla ne sobe lañ war na leen leen ne bokkaalekat sobe la bokkaalekat yi lan la ñuy def dañuy reen ni ci ay xërëm ni sangoo deret bi di ko naan nga gis koo xam ne dane man téere bi ma takk yaxu nit la ah wala sacrifice ñuy def sobe lañ muy sangoo deret di julli ci ay deru mbaam di julli ci ay deru xaj di jël laase xaj di ko def sa bëli wala ngay jël yuuti xaj di ko def sa gémmiñ wala ngay sëy xaj wala ngay sëy ay mala ah loolu kooku kooku du nit kooku du sobe kenn gën te nekk sobe bokkaale kat moo tax yàlla mu ne innamal mushrikuuna najas bokkaale kat yëpp sobe lañ puisque dañuy takkoo sobe duñu am janaaba sang duñu set te dañuy jullee noonu duñu dañuy jàpp dañuy te duñ julli wala ñu julli te duñ jàpp wala yàlla mu ne ay sobe lañ kon al illa bi annaha najas dalil ala anna kullu ayni najas fa hiya muharram illa gi tax yàlla ne mbaam sobe la day wane ne kon sobe dafa araam lan moo tax sobe araam mooy lor moo ci nekk lépp lu yàlla ne bu leen ko lekk luy loraate moo ci nekk sàngara bi yàlla ne buñ ko naan lu ci nekk weddi ko nga dem naan dama nga naan cinq bouteilles yu tegaloo après nga taxaw ci digg mbedd bi léegi nga xam lu ci nekk wala mbaam xuux xam ngeen li ci nekk kon mbaam sëfit am na lu ci nekk lépp lu yàlla tere ab jullit ne bu leen ko def araam na ci lu ñuy lekk wala li ñuy naan dafa am luy lore lu ci nekk moo tax yàlla mu ne bàyyi leen ko bu leen ko def ndax cosaan wallazi xalaqa lakum ma fil ardi jamian yàlla moo leen defaral li ci kaw suuf yëpp pour ngeen koy jëriñoo waaye lépp loo xam ne mu da leen di lor na yàlla mu ne déedéet déedéet li bokkatu ci ndax loola ci nekk bu leen ko laal fekkee lu ñuy lekk la mu ne bul lekk fekkee lu ñuy naan la mu ne bul naan bu dee lu ñuy sol la mu ne bul sol bu dee fuñ dul dem na mu ne bul dem mais cosaan mooy yàlla moo la defaral lépp mais ba mu xamee ne li da lay lor mu ne la bu ko def mu nga loolu la la fakko cher ah mooy loolu ñu doon wax keroog waaw waaye man dama ko moom ah xibaar la moom moo am bii jën moo am nii ci bi mooy moom mooy mbaam àll dañ koy lekk waaw te mooy yàq tool yi mooy yàq tool yi gars yi di ko rëbb waaw bokkul waaw moom mbaam xuute xinzir baaxul bu dee kay xinzir kay baaxul laa mu xinzir boobu dafa ara xinzir baaxul xinzir la baaxul moom alxuraan moom moo ko indil bopp bopp baaxul beneen bi mu ne mbokk yi ci jàngale bu ñuy jàngal ci ne mbaam juróom-ñaareel bi mu ne ajma al ulama borom xam-xam yëpp dëppoo ala anna warasatu lximaar al aali wal baxal wa bawlihi wa damihi wa laxmihi najas li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam al himaar innahu najas juróom-ñaareel bi ñuy jële ci dars bi mooy borom xam-xam yi dañoo dëppoo ne nefere mbaam mooy li muy génne ak baax la baax la mooy ban saw baax la berkel la ñu ne sawam ak deretam ak yàppam ñu ne sobe la ndax yeneen bi nee na alximaar innahu najas mbaam sobe la wa qaala an warasati an waratihi innahu najas yeneen bi encore ne nefere du sobe la mu ne waxtalafu fi badanihi léegi nag ñu daal di wute ci yaram bi ci kaw yaram bi ak li mu ëmb ci kaw noonu ak sidit yi ak gémmiñ gi ak liy génn ci gémmiñ gi ci ay purit ak yiwut ak bakkan bi li ciy génn ci ay ñandaxit hal hiya najas am taahir ñu ne waa lii ndax sobe wala du sobe lu ngeen jox ah mais wute bi foo am fu mu téere yi maanaam ñi ñoom dañoo araamal lii am na ñoo xam ne ñoom mbaam ci boppam léppam lañ araamal lépp ñenn ñi ne déedéet def ci am mbaam lu baaxul ci moom rek mais am na loo xam ne baax na ci moom dagan na ñii ñoom dañu ne mbaam gémmiñ la ciy génn sidit yi ak yuut yi ak bakkan bi la ciy génn ah loolu est-ce que sobe la wala du sobe mu ne fa zahabal imaamu ahmad fil mashhur imaamu ahmad moom li mu dem ci li gën a séew ila najasatiha ne loolu sobe la mu ne wa tabi'ahu zalika ashaabu mu ne loolu moom imaam ahmad bi ma loolu ko ay taalibeem dañ koo topp ne mbaam sobe la luy génn ci moom sobe la mu ne ñu wax ci téere bu tudd al maqta wal insaaf wal baxlu wal ximaar al ahali najas mu ne haada mazhab wa alayhi jamaahiru ashaab mu ne dañu ne berkelle ak mbaam mooy mbaamu kër sobe la mu ne ngir gi tamit am na am na aussi ay àndandoo mu ne ibnul jawzi mu ne haada huwa sahih min al mazhab ibnul jawzi mu ne lii mooy li wér ci ngir bi mu ne waaye wa zahaba al imaamaani malik wa shafii ñaari imaam yi mooy malik ak shafii ñoom dañoo dem ne annahuma tahiraani mbaam ak berkelle ñoom ñaar dañoo laab boo yee riwaaya al imaam ahmad mu ne li tamit benn riwaaya waaye ko ci imaam ahmad ixtaaraha baadu ashaabihi lenn ci ay ndongo imaam ahmad riwaaya bii ñoom lañ tànn moom lañ wéral mu ne wax nañ ci téere bu tudd Mughanna Mughni wa saxiixu taahirul baxla wal himaar mu ne li wér daal mbokk yi mooy mbaam sëf ak berkelle dañoo laab lu tax dañoo laab ñoom ñaar parce que ñu ngi koy jëriñoo
te yooyu mënoo mënoo ko mënoo ko def te laabuloo ko te soo koy laal da ngay da ngay dugal sa loxo ci làmmiñ gémmiñ yooyu yëpp
mu ne wax nañ ci téere bu tudd al insaaf mu ne wa huwa saxiix wal aqwa dalil mu ne li wér te nekk dalil bu dëgër mooy mbaam sëf ak berkelle dañoo laab mu ne ixtaaraha baadu masaayix muasir mu ne leen sax ci ay sëriñ yu nga xam ne ay sëriñu jamono lañ tey lii lañ tànn mu ne ku mel ne cheikh mohammad ibnu ibrahim ala cheikh mu ne innaha tahir fi l xaya wala yanjus minha illa al bawl wa raws wa dam nee na buy dund moom mbaam laab na waaye li ciy sobe mooy saw yi sobe la nefere bi sobe la deret bi sobe la waaye jëmm yi ci kaw dafa laab ñooñu fan lañ teg ba ne jëmm yi ci kaw dafa laab yéen na yéen na yeneen ko ko naan wax kon bu doon sobel du ko wax wala ñu ne jëmm yi ci kaw dafa laal ndax bu doon sobel la yooyu bu yëpp sobel yooyu dama mën a mbaam kon lay sobe ci mbaam mooy deret ji la muy génne dem àll ba nefere yi ak yàpp bi am maa jëmm yi ci kaw loolu dafa laal dégg ngeen ndax bu doon sobe la yonent du war mbaam beneen àttee ko da ngay dégg fii ñu ne ku sant caam du war mbaam balaa saa mu war naas waaw ku sant caam du war mbaam balaa caam mu war naas naas mooy la nit ndeysaan waa léegi xanaa ko war mbaam dangaa ñàkk fay la amoo personnalité amoo maqaamu kon ku sant càmm moom moo gën a foor yeneen jëg man te waa daara faawul ba wallaay ku suppi suppilu yàlla yëkkati yoon ci waxuma la da doon war mbaam mais day war mbaam togg ci nit hadis ibnu Mas'ud du ci mbaam la nag togg ci ibnu Mas'ud ginnaaw ko yaa Ibnu Mas'ud kaay ma jàngal la ci ci mbaam la yéeg ba pare teg ci nit ci ginnaaw di ko jàngal diine sallallahu alayhi wa sallam lu tax yonent bi war mbaam pour jàngal nit ñi mais jamono yonent amoon na leneen lu dul mbaam mën a fas fas mën na far fas kese te yonent bi bëggoon fas sahaaba yi dañu ko indi fas bi daal ko ci fas yi wala yonent bi ne woon damaa soxla fas wala ñey yonent bi xoolal bàyyi fi loolu bàyyi fi fas bàyyi fi ñay bàyyi fi gëléem bàyyi fi loolu yëpp yonent bi ñëw war mbaam sallallahu alayhi wa sallam di woon nit ñi ne dañoo war a suufe waxuma la mu teg mu mu war mbaam mooy mu teg ci nit allahu akbar bokkoog nit te mooy muhammad tey ñun ci suñu jamono ñuy tagg ay nit naan ñooñu du ñu yéeg mbaam tagguñu leen dañ leen a xas ndax ku leen gën yéeg na mbaam mooy muhammad ku leen gën laa wax gën ku ñu yaakaar yéeg na mbaam mooy muhammad bu doon kon loolu leneen la kon yonent bi du yéeg mbaam waaye bal day jàngale moom yonent yàlla da ko yónni innama bu'istu mualliman yàlla ma yónni pour ma jàngale du ñàkk fayda ndax amoon na leneen du ñàkk lu mu war ndax leneen a ngi fi woon waaye yonent bi yàlla ko yónni pour mu jàngale sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dina yëg nit ba dem parce que moom dafa am xam-xam yàlla ko yónni wala qad karramna bani aadam ko yonent bi du yëg ci nit yonent bi du yëg nit yonent bi du yëg nit du rey nit ñun dégg naa fi am nañ koo xam ne rey na nit ndax dañ ne ko xawma reyal lu nekk benn bu dem jël nit reyaale te yàlla ne na ku rey nit safara nga ci wala kon fii da ngay gis ñun erreur yi ñu nekkee yonent bi dundam mustare yi wala keroog Abdullah ibn Ubay ibn Salul bi mu waxee bu ñu demee Madina la yuxrijanna al a'azzu minha al azal ñun ñu tedd danañ génn ñu torox ñi ñan ñooy ñu torox ñi mooy yonent bi ak saxaaba yi ñi wax ko yonent bi ki ko wax yonent bi ñeneen ñi am ñu ko wetti aaya wàcc ne waa ji moo nekk li mu wax mooy dëgg ndax waa ji wax na loolu rek saxaaba yi jënd seen jaas yi ne dañuy taxaw buntu ma dina xaar Abdoulaye ibn Ubay bu ñëw ñu rey ko yonent bi ne leen déedéet rus naa àddina bi di dégg Muhammad mu ngay rey ay ànd ak loolu du ma def loolu bu leen bàyyi leen rus naa loolu yonent bi loxoom mu ceere nit même ca Badar ba mu tibbee suuf si sànni gaa yi fattu ñi ñibbisi bu nekk naan maa rey diw maa rey diw maa rey diw moom yonent bi mu ne ah man de maa jëloon suuf si ñaan yàlla ne ko déedéet du yow de wa maa ramayta iz ramayta walaakinna Allaaha ramaa bi nga sànnee du yow de te dangaa sànni rek man yàlla maa jël suuf si dugal ko ci bëri waaye du yow gis nga même loolu sax du moom moom loo xam ne bu si cee rafetlu woon ñun fii bu ñuy tagg ay nit kii yu bon lañ leen di tagg diw rey na nit nit ñi ne est-ce que diw du war mbaam nit lay war ñu ne est-ce que nit kenn du ko war. ban aay lañ jàng yàlla mu ne nañ yéeg nit ban hadis ah ndax doomu aadama yàlla ko fonk wala qad karramna bani aadama yàlla dafa fonk nit kon mbokk yi li ñu tànn mooy wax ju mujj ji mooy innaha qaahir moom mbaam dafa laaw fil xayaa waaye buy dund wala yanjus minha sobewul moom mbaam illa bawl lu sawabi wal waras ak nefereem wa dam ak treetam qaala cheikh abdourahman assaadi kenn na ci borom xam-xam yi ñuy wax mu ne assahi allazi la rayba fii an al baghl wal himar taahiraani fi lxayaa kal xir nee na mbaam ak berkele yooyu ngeen di wax mu ne dañoo laab ci seen dund comme muus xam ngeen muus kenn du lekk yàpp waaye laab na ndax in yonent bi neen innaha tawaafina min ahlikum dafa bokk ci wër ci yéen bokk ci seen waa kër mu wax bu fekkoon ne sobe la kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam dina ne mu sobe la kon cosaan mooy mbaam jëmm ji dafa laab ci kaw yuut yi dafa laab ak yi génn ci bakkan yi amma yàpp bi soow bi deret bi ak ay nefereen sobe la kon mbokk yi loolu mooy sunu xadiisu tey mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo doon jàngal bisu xaybar ci xadiisu anas mu ne lamma kaana yowmu xaybar amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aba talha fanaada inna allah wa rasuluhu yanhaniyaanikum an lugumi lxumuri lahliya innaha rijis mutafaqun alayh yonent bi alayhi salaatu wasalaam day moo woo aba talha ne ko nanga woote ci biir mbooloo mi yëgal leen ne yàllaa ko yonentam day ñu ngi leen di tere kan moo tere yàllaa ko yonentam inna allaha wa rasulahu yàllaa ko yonentam de yanha yaanikum ñu ngi leen di tere an luhumul xumur al ahliya ñu ngi leen di tere lekk yàpp mbaam kër lu tax mu ne innaha rijis ndax moom sobe la gars yi dañ doon lekk mbaam de am ku ñu ne yonent bi waaw yàpp mbaam nag keneen ñu ne yonent bi gars yi jeexal nañ mbaam yi de keneen ki ne yonent ci ni fees na yàpp bi mbaam de yonent bi ne eh moo leen abaatal la tere nit ñi lekk yàpp mbaam kër li mooy cosaan bi bisu xaybar la xaybar waxoon naa leen ban at la am ca gàddaay yonent bi alayhi salaam ak ban at la am ci juddu Isa mi ngi am ca juróom-ñaareelu at ca gàddaay ga mi ngi am weer du muharram li ko waraloon xeex ba wax naa leen ko sabab yi mooy yahuti bani Qurayza ñoo doon ñoo waroon yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi génne leen Medine ñu dem dëkki fekk yahutu bani Nadir ca Xaybar formé fa seen guérilla di envoyé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay caaxaan ak ay banditisme loolu soof yonent bi yonent bi fekki leen loolu mooy sunu dars tey ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu def ci ñun dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatulah. fekkee ne am na ay questions yi.